parce que nit du tagg boppam mais ñun amuñu problème yooyu. loolu loolu amuñu problème yooyu. amuñu problème nga tagg sa bopp mais booy tagg sa bopp non attends mais li ma la bëgg a wax foofu moom. Mhm. mooy Thérèse moom rôle bu mu yàgg di jouer biir alliance pour la république tey la ko gën a man xam nga lu la waroon gën a jaaxal wala li nga waroon laajte. am na ñi nga xamante ne tey président Macky Sall cër bu ne jox na leen ko ñu war a assumer ay position taxaw ni furaas dem. looloo la war a jaaxal waaye ñun ñi nga xam dañoo taxaw jàkkaarloo pour jàppale président Macky Sall ci lii mu bëgg loolu je pense que ku nekk Sénégal war nga mun ñoo mun a encourager ci lool parce que gis nga politique pap mais li nga wax jaaxaluma. gis nga politique pap li nga def ma war a jaaxal jaaxaluma te mën naa wax pourquoi jaaxaluma. pourquoi non pourquoi jaaxaluma mooy loolu loolu c'était prévisible loolu lu ñu mënoon gis la dañu génn ci élection présidentielle yoo xam ni euh, dañu am candidat tànn ko. nga xam ko ñëpp xam ko muy Amadou Ba président de la République doxale ci ni mu ci doxale ñëpp gis ko ba ñu génn ci élection yi. Ah, ni mu ci doxale mais ni mu ci doxalee mooy. mais gis nañ ko. mais nu mu ci doxalee Pape nu ci doxalee jël ay moyens jox ko tànn ko candidat def ko ministre des finances ministre des affaires étrangères def ko premier ministre mu des une semaine def ko candidat mu des une semaine mu bëgg koo changé teg keneen. waa léegi bu dee da koo bëgg a changé man loolu yaa ma ko ah, itam. bu dee daf ko bëggoon changé. loolu yaa ma ko yëgal. Pape dégg loolu la ministre mu wax lu mel noonu. loolu Abdoulaye Seydou Sow la engagé. mais dégg nga mu wax ko la dégg waxuma engagement la moom la engagé. xam ndax moom la engagé xëy na moo xam lu tax ma wax ko man lépp lu ma wax je parle la base de ce que je man de fay birab mën naa bàkku ne fa ma dëkk dama ko gagné élection yi passé ñëpp xam nañ ne Ba daa perte ba perte bureau de vote parcelle gii mu gagné mu dëkk te moo nekkoon candidat bi. xanaa balaa ngaa jiiñ nit defet nga régler lan moo waral sa defet fi nga dëkk sa biir koñ nañ wax rek politique la ñuy wax la noblesse politique c'est la représentativité Pape balaa nga ne mën a mën a sa waa dëkk ñi nga bokkal koñ xam nga luy bureau de vote Pape mooy kër gi nga dendal kër gi ci topp bi ci topp bi ci toppaat ñooñ bu ñu demee ba mënuñ laa votel nga ne danga nga bëgg a jiite réew mi ça pose problème parce que nag wax ji dafa jot ñu leeral ko parce que nit ñi dañoo yàgg. di attaquer président Macky Sall naan dafa xeex Amadou Ba. mais loolu bu ko fi dindi tey gis nga. non loolu moom du lu may wax xaaral gis nga Pape xoolal non non Pape xaaral rek loolu président Macky Sall moo la ko gën a xam. mais mais Pape déglu ma moom boo ko assumé wul moom assumé na ko. est-ce que man boo ma dégluwul. ci sama raisonnement boo ko assumé wul moom assumé na ko. boo ma dégluwul sama raisonnement doo xam fi may waxee. non ça non mais aussi nit ñi aussi. gis nga Amadou Ba dafa am loo xam ne boo fi ñëwee. waaw léegi déglu ma rek bëgguma ñu tardé wu ci Amadou Ba non non moo tax bëgguma parce que waaw bëgguma bëgguma ñu tardé wu ci mais dafa am loo ci dugg. ok mais c'est important loolu lu ne fàng la loolu ay fay la c'est tellement important c'est tellement important que j'en parle parce que man dama ne charité bien ordonnée commence par soi-même booy exiger nit ñi gañeel la njëkkee la gañu fi nga dëkk ba pare pap sa biir kër boo ko mënta régler bul demandé keneen ñëw régler la ko dëgg la wala dëgg mais man boog man de noonu lay respecté nit politique ki koy def man baasam laa koy respecté du ay nit ñu lay waxal ci média yi di commandité bër set guddi di comploter di wax lu la neex loolu du politique président Macky Sall lu ko nit bañ bañ bañ bañ bañ xam ne bu élection jotee li ci war da koy def. ok alors tout à l'heure dafa am loo wax da nga ni euh, première force politique bu opposition yéen la. yéen mooy ñan dindi. ah non c'est-à-dire très xam nga nag bu ñuy bu ñuy bu ñuy waxtaan ak. Pape jarul ci ñuy sori ci loolu. élection kañ la du la non waxuma non waxuma lépp non dama ni. waaw continuer sa question c'est-à-dire c'est ça. <laughs> première force politique de l'opposition. nga bëgg ko revendiquer c'est-à-dire bëgg naa nga wax ma fan nga ko teg. léegi yow fan nga teg ne ñun nekkuñu premier force de l'opposition mais dama gis ay ay ay ay ay dama gis ay ay calibre ci politique yu bokkoon nekkoon ak yéen te nekkatuñu ak yéen. dama gis ki nga xam ni euh, par exemple moo nekkoon seen candidat mais dem taxaw berlangam. taxaw ma gis ko mu woote euh, ci ci King Fat mais lu dul maire yu bokk ci yéen dem wuy ji ko lu dul ay élus yu bokk ci yenn dem wuy ji ko mais kon boo taxawee di ma wax ni ma APR tey mooy force de l'opposition mooy force politique bi gën a am doole ci opposition bi mais man bëgg naa nga nga démontrer ma ko loolu. xam nga leader buy nax boppam du ma ci rey sama temps APR woote na ay meeram yow nga woote sa biir King Fahd xam nga saalu King Fahd bi mii et quelques personnes lay def di nga ma ne saal boobu maire commune Sénégal ñaata lañ 553 communes lañ xanaa bu dee ay maire kese lañ woo saal boobu warutoon fees. la politique n'est pas la science mi des fois c'est de la science Pape. non du mel des fois non déglu ma non déglu ma rek déglu ma rek. Saalu King Fahd bi c'est mille deux cent et quelques places. les communes du Sénégal ñu ngi ci 553 communes bu dee maire yëpp a ko wuyu saal bi sax warutoon fees kon buñ ñu bëggee gëmloo ni saal ba yëpp ay maire la woon. am na lu ma ci jaaxal. te loolu sénégalais war nañ mën a xalaat waaw léegi gis nga fa gis nga fa ma Diagne gis nga fa Moustapha Diakhaté gis nga fa ñeneen ak ñeneen donc c'est juste pour expliquer la ni nga ko bëggee waxee xam nga ni demeewul noonu. waaw de moo tax ma ne la des fois kiy toog di nax boppam. ah kon nax boppam nga ko jàppee. mais bien sûr yow tu n'avais même pas 60 maires ñun compté nañ ko di amoo sax 60 maires nga feesal ko certes am na ay députés yu fa nekkoon am na ay quelques présidents de conseil département yu fa nekkoon mais la mathémat les mathématiques quand même ñi ñëm war nañ mën a comprendre ne que 553 maires mënuñoo feesal salle boobu et puis loolu sax jaruñu ci artardé wu parce que Pape ñun la wala du ñun le 17 lay leer suñ borom bu dogalee résultat yi génn ñi ñi dinañ xam d'accord intercoalition bi ñu ngi ko doon xaar ci ci ci ci ñaari coalition yi bi Macky Sall jiite ak bi Amadou jiite am na ñu ko doon dox lan moo tax loolu mënul mujjul sotti ak lan moo ci xew. bon xam nga man moom. déjà ba Macky Macky mën a ànd ak PDS ba euh, euh, par exemple euh, tey jii Amadou mën a ànd ak ñi nga xam ni ñooy waa waa waa waa taxawu ñoom Khalifa. non Amadou lan moo tere par exemple. coalition bi intercoalition boobu mën a am Amadou àndul ak waa taxaw. ak waa waa ñoom Khalifa su fekkente ne la cas Dakar moo tax ngay wax je peux expliquer mun naa la ko expliquer te loolu dafa am lu muy firndeel parce que ay gor bu ñu toogee wax nga dem ba dernier minute am neneen noo defee loolu day wone li ñëpp di ragal ci Amadou Ba des fois sàmm kàddoom da ko jafe. déedwaay waaw maa ko wax. parce que noo mën a déggoo ak nit ñi ne intercoalition Dakar ba nga joxe dossier Bamba Fall ba nit ñi dem déposé Bamba Fall yow nga dem dugalaat beneen liste Dakar ci suuf looloo am looloo am ah, ko ko reproché bari na de. waaw looloo am loolu lu muy niro waaw ah, ko ko reproché bari loolu lu muy niro munoo wax ne que dangay dem intercoalition ak Khalifa Sall ak ñun ba joxe dossier Bamba Fall ba tey boo duggee ci list takku wàllu Sénégal. Euh, numtu sax liste ñoom xalifa bi di fa gis turu Bamba Fall nga jaaraat ci suuf dugalaat beneen liste pour jàmm ak njëriñ loolu lu muy niru bàyyi naa sénégalais yi ñu apprécier. d'accord alors. li xew géejuwaay tamit mën nañ ci wax ak feneen ak feneen donc nit ñi kenn bañul ay position ñun ñëpp benn lañu bu Sénégal wootee. non li xew Guédiawaye ci choix ci département bi nga wax wala ci national bi. non ci département bi. mooy le choix de Aliou Sall ak de euh, ba fii may yow sànq-sànq am na benn jeune boo xamante ne bu muy wax ak man ci ngoon day jooy na ma man biñ may laaj sama sama sama sama sama dosiye dañ ma ne intercoalition bi mooy dem ci la gis ne que dañ ko dugal ci liste Guédiawaye jàmm ak njëriñ suppléant te ñoom amuñu honnêteté ne ko ñun def dematuñu intercoalition kooku di nga gis dina ko bindal boppam pour bu def ni Ablaye Dièye def mais le coup est déjà parti il peut plus démissionner donc la transparence dafa am valeur morale yoo xamante ne nañuy faral di ko développer en politique gis nga euh, politique bu weesoo jàmm dafa neex waaye tamit ku ne naw sa morom dafa neex pa mais dafa mel ni donc élection yi tey nekkul seen diggante yéen seen coalition ak bu Pastef mais dafa mel ni seen diggante seen coalition la ak coalition Amadou Ba. non non pourtant parce que parce non, que non, rendez-vous bi ngay joxe le 17. non dafa mel ni foofu ngeen koy xaar. non non question bi nga ma posé la rek. ndem man moom du ma wax ci lu ma xamul te résultat génnagul moo tax ma ne la le 17 mooy leeral lépp. Mhm. mais ñëpp xam nañ ne que tey. l'objectif principal de toute l'opposition sénégalaise c'est d'empêcher Pastef à avoir la majorité loolu kay bu doon objectif bi intercoalition yi dafay dafay dëgër dafay nekk benn waaw mais loolu kay bu doon loolu mooy objectif bi xam nga lenn rek moo leen ko mënoon a jox muy loolu ci raw gàddu la ñu nekk mais xam nga ñëpp yemuñu ci ñu ñuy doxalee mhm. parce que logique politique mhm. ak vraiment li nga xamante ne moom mooy euh, am esprit de dépassement mhm. dem au-delà même des ambitions personnelles voudrait que ku nekk li nga xamante ne mooy se considération personnelle nga teg ko ci suuf te ñu dem ci objectif général mais tamit loolu bu weesoo bu mënta nekk aussi ba mënta nekk ñun ñu ñu ñu def ak li mën a nekk. ok muy aujourd'hui on est en intercoalition. avec les xalifa tout le monde. partout dans le Sénégal c'est général dans les quarante cinq départements quarante six départements. alo léegi man dafa am lu ma jaaxal ci tête de liste bi muy le président Macky Sall man le président Macky Sall dama ko déglu. ci veyu élection yi mu ne euh, suñu mënta déggoo ci datu élection bi le 2 ñu dem ci élection le 2 ma joxe lenge yi man doyal naa ci sëkk